di sant yàlla bu baax baax dellu sant yàlla comprendre waaw ñoo ngi sant ñëpp ñu fi fekk ñëpp suñu am di jàmm yeeg waa Pikine yeeg ñëpp ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax sant ñu fi nekk ñëpp. ñoo ngi ko doon xaar quoi gannaaw ba Abiboulaye génnee àdduna. Mhm. ñu si bari nee nañ amul jàppandal. Mhm. yàlla na ko yàlla xaaree aljana mais dafa mel ni jàppante bi amoon biir Pikine amatul. waa dañuy sant yàlla rek si loolu xam nga tey am na loo xam ne sax jarul leeral parce que dañ koy ñaanal yàlla suñu borom xaaral àjjana dañ koy ñaanal yàlla suñu borom xaaral àjjana bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njabootam ñëpp xam ñooñu sant yàlla bu baax baax di ñaan yàlla nag lu ñu dal si abulaay ba ñoo dalaat ba ñoo dalaat si jibiyaata muy ñun ñëpp ñun ñëpp muy waa Pikine ak képp koo xam ne doon na war a jàppale abulaay xaar ba mu kii tamit na ñëw yooyu yëpp dañu bañ mu dal moo tax ñu woote ñun ñii ñëpp pour ñëw ñu dajale suñu doomu day jibiyaata di wo ñëpp dal pour ñu ñëw japp ñu jappal ñu am ama ñu ñëw fekk la fi ta taxaw ak sa frère Pam Mbacké taxaw ak Rama Mbacké Alaaji Mbay ci ginnaaw tay pikim teew ngir la ngir jibi ama mu pikim dafa tawat tay tay ngeen soxla social xale bi ñu war ko fajj graay bi yàgg tay bu amul cadeau yooyu wax réew di ko autorité di am appel booy woote un appel solo ne man appel wa appel mo ngi rek wa appel mo ngi buma taxawé xama tay xeli jugé guñ ci abou lay tey xel yi suñu xool ñu ñëpp tooy nañ si dañuy ñaan rek ndimbal parce que tamit ku amul ku matlewul day ñaan forcé wuñ kenn waxuñu kenn dañuy def fala force dañuy ñaan ndimbal képp ku si mën a ñëw jàpp rek ñëw jàppale ñu parce que tamit ñoo yelloo ndimbal comprendre dañuy woo nañ ñoo ñëw jàppale ñu parce que boo gisee ku su mel ni euh, suñu mag Pam Mbacké xam na ku su mel ni suñu mag Pape Sarr ku su mel ni Ndooy xam na ku su mel ni moo taala ku su mel ni ku suñu jigéen ku su mel ni Rama Maki xam na ñoom dañuy teewal Pikine comprendre dañuy teew ñun mun nañ la ñun dañuy tëdd sax suñu lal ñoom ñooy dem kër kër dañ leen di jàmm comprendre na leen di ñaanal jàmm bu baax a baax ñu ànd yëkkati liggéey bi ñun ñëpp ñun ñëpp ku su ni Pam Mbacke ku su mel ni Rama Maki ku su mel ni Mor Talla ku su mel ni kon liiru ku su mel ni ñëpp ñun ñëpp ñu yëkkati dóorandoo dañ koy ñaanal jàpp si moom mooñ ci jàpp bu baax a baax dañ koy ñaar mu gën ñoo teg loxo gën ñoo jàppale ba jibi yaata ba jibi yaata yàlla yëkkati ko parce que ñun looloo suñu euh, looloo suñu objectif. lan moo war a doon doole collectif bi mouvement bi juddu nii doole bi lan la est-ce que du doon Morne 100 pour cent Pikine am na fi. Mm-hmm. yàgg nañu ko dégg ñu seetaan. Mm-hmm. di suñu effort bu ñu def ci Habib. waaw xam nga tey xam na tey Pikine tey mun naa la wax milliardaires yi ñoo ëpp Pikine waaye xëy na tamit dañ dul dañ dul jàppale ñun wax rek lañ am tey mënuñoo dem kenn fëgg ko ne ko par la force dañuy jox dañuy dañuy dem fu nekk dañuy wax dañuy dem fu nekk wax dëgg yàlla waaye tey tey geste bi dañuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla ñu ñëw ñu ñëpp ñu ñëw ñu jàppale ñu ku su mel ne suñu grand Thierno Ndom Ba moom da ciy jàpp bu baaxa a baax a baax. ñu ñu weddi tuuma. Mhm. gannaaw bi Abibulaay génnee àdduna ñu bëri dañ ne Ama Baldé jàppale wu. waaw loolu maa Abulaay la xam nga tey du ma jàppale Abulaay sama deret la. Abulaay sama deret la xam naa fu ma toll si man bu baax a baax. man nekk man maa war a jàppale Abulaay di toog média bi di wax. non non parce que man Abdoulaye dunduñu loolu ànduñu démb ànduñu barki démb ñu bokk tey dañoo ànd comme ça kon wax na ko ko solante yére ko nekk dama war a taxaw si média mooy loolu loolu sama loolu loolu tey ku may sikk si loolu parce que nit ku nekk li na doon doon doon la man nekk ma koo xam dama war a taxaw si média bi kii noonu yàlla yoreewu ma noonu waaye tey xëy na tamit yàlla suñu borom yàlla suñu borom lépp suñu borom la Abdoulaye Abdoulaye kenn ah, du dëddu àdduna ñu koy waxal loo xam ni lu kii la moom mooy doy nañu seere comprendre buñ jëlee si awlaay tey ni ku nekk si àdduna noonu la àdduna loolu la comprendre waaye dañuy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla ñun ñëpp ñëw ñu jàppale jibi jibi jibi ama. est-ce que jibi ama kese la war a doon. non ñëpp tey tey ñëpp bëri na. tey bëri na bëri na ndaw moo ñu fi def na lu nekk Pikine benn say bi tey gis na boo gisee tet yi taxaw fi rek benn tet bi lañ tey ku su mel ne suñu mag Pambaake tey mun naa la ñun ñëpp jox nañ ko cër comprendre na ñun ñëpp jox nañ ko cër kon tey moom lu mu si wax rek lu mu si wax rek ñun ñoo ciy taxaw comprendre na dañuy dañuy ñaan yàlla tey ku su mel ni góor gi si Dieng ku su mel ni ku su mel ni mm, Cheikh Kouyaté bu Cheikh Kouyaté koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm parce que boobu ba léegi moo ci taxaw xam na ñoo ngi koy ñaanal yàlla na si yàlla defal jàmm xam na di si woo ñoom Doro Gueye ñoom door Doro Gueye ñu woo ñëpp ku su ni suñu mag Waly Seck gis nañ acte bu rafet bu mu def bu baabaa baax ñoo ngi koy woowaat parce que moom doomu Pikine la ñoo ngi koy waan mu ñëw ku su mel ni suñu mag Pape Diouf xam na ku su mel ni suñu mag Pape Diouf ñoo ñu woo ñu ñëpp ñëw ku su mel ni tey Modou Gueye président AS Pikine xam na ñoo ñu woo ñëpp ñëw ku su mel ni Xaadim Dukure Xaadim Dukure taalibe Cheikh Sarr ñoo ñu woon na ñëpp ñëw jàpp si si bit bi waaw xam na waaw. ak loolu làmb ñoom ñëpp sa mbokk mbokk mbër yi si kaw ténor yi. Mhm. est-ce que doo jàpp si ñoom tamit. waaw day day dañoo doon benn say boo xam ni am na loo xam ne teg nañ ko ñun nag ñoo si des tey tey woo nañ ñëpp pour ñu ñëw ñun ñoo si def nag ñun ñoo war a liggéey lu tax jibi yaata dañuy ñaan yàlla jibi yaata lii ñu opté lii ñu ñaan yàlla jibi yaata jénn ñun suñu biir mooy jibi yaata jug tey jàppale bi lépp dañuy ñaan yàlla mu yëkkatikuwaat ba dox ah, ba dox lu mu waroon mel yëpp mu mel ko dañuy woo ñëpp ku su mel suñu gënaa kenn doom ba ñoo ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax di woo suñu ministre des sports suñu ah, suñu maire Pape Ndong moo koy ñaan yàlla na suñu borom defal jàmm moom gis naa nu mu taxawoo bu baax a baax maa ngi woo ñëpp nañ ñew di wo ku su melni sama jigen rama makki comprendre ñun ñepp pikin ñun ñepp pikin pikin mo ñu ñor xam na ñun ñepp pikin lañ ko ñor dañ koy ñaanal yalla rek yalla nako yalla katanal comprendre dañ ko kàttanal ñun ñepp ñoo far tay bo gisee ñun ñepp ñoo far xol li nak ñoy toy way ñun ñepp ñoo far ñun ñepp ñoo juddondo yorondo magado tamit tamit nit bu la bëgge nit bu la bëgge chaque jour mom lay gisee at at yo xam moy lool tay xeyna xëy la ba pare ñu sék mu war ma wax ñu wax xam-xam dañuy ñaan yalla ñun